tas parti Pastef tas mairie bu ndakaaru tasaare ku jëg politique gi euh, bu ci desee bu yaboo ñu xam ne nekkatuñu ci république waxumala ak démocratie dellu nañu ca njaayum jaam ña buur sañ a rakum dëndëm ne ku fi fanaan mu def la jaam bu ma déggee euh, njiital réew mi président Macky Sall di méngale boppam ak Birima Maysa Tend Joor ma ca benn baat ba bu waxee ren bala muy waxati muy déwén ma ni daa umpule Birima Birima buur la woon fu mu toog ay dagam wër ko waxam ak joxoñam sant waaw ndax ci lu nu mel la ñu président Macky Sall bëgg delloo nuru na justice ak ni mu ko ngëbe ci loxoom ba ku ko neex dugg kaso ku ko neexul du dugg kaso vraiment c'est dommage du ma ni Abdoulaye Wade baaxul woon ci suñu démocratie waaye lu ko gën fuuf la ñu doon xaar ci moom président Macky Sall mu dekkal ngor dekkal njub dekkal yoon ci biir réew mi ba fii li ñu fi mën ne gongo bariwul lu aju ci mairie bu ndakaaru la gënoon moo dina na xaar ba gañe ko ba dégg wiiw ba noppi doo koo tas bu ko defee mu neex a layal lu aju ci parti Pastef itam daa war a xaar ba ñu def fi wala ñu wax fi lu mu fi deful waxu ko fi mu dog koo tas bu ko defee mu neex a layal naam dëgg la moom moo yore dëkkreem waaye ci askan wi la ko jëlee te askan woowu nag ñoo fal maire bu Ndakaaru jël njiital Pastef def ko troisième ci wote yi mu nekk premier moom président li gën nag ci démocratie mooy ku nekk nañu ko jox gëddaam te président bala may jeexal tontul euh, kii di Kouthia soo ko mënul waxal sa comédien yi ñu génn tontu ko abu Bilal dafa samp ab laaj bëgg xam bés bu ñu fa jëlee mairie bu Ndakaaru bu fi maire bu Paris dikkee ci ak ngan ana kan moo koy teextu wasalaam ba beneen conférence. incha allah di ngeen ko dégluwaat conférence ak Papa Ngagne Ndiaye ci kanam tuuti lay doon bu xibaaru 13h yi ak moom Mamadou Mouhamed Ndiaye.